alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallam mbokki di ginnaaw bu tàmbale ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom yàlla nim nu mayee ñu fanaan ci jàmm yewu ci jàmm noo ngi koy ñaan moom borom bi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu yendal ñu ci jàmmam ñu del siwaat ci dars fajar yi te ñuy jël fukkeelu charte ci xal nax nu muslimun ndax nun ay jullit lañ soo bëggee nekk ab jullit foog nga remplir fukkeelu charte bi ak ñeent mooy an azkurullaha taala dawman mooy foo nekk ngay tudd yàlla foo nekk ngay tudd yàlla di ko xalaat ci sa xel di ko tudd ci sa làmmiñ mu nekk ci sa dënn foo toog partout yàlla nekk ci yow wa an yakuna somti fikran sag noppi ndeke xalaat la nit ñi ñoo lay seen nga noppi waaye ndeke yow ci biir yaa ngi xalaat sa boroom nooy def ba tegu ci yoon wi nooy def ba am ngërëmam nooy def ba mucc nooy def ba jaamu ko wa nutqi zikran mbokk yi saa wax na nekk tudd yàlla tabaraka wa taala nga moytandiku ay mbóosóor ak caaxaan tuddal yàlla fa zikrullah huwa silah tudd yàlla mooy ngànnaay al amdo buy wéy tudd yàlla mooy ngànnaay bi soo bëggee am ngànnaay del tudd yàlla soo bëggee wér wa ilaaju nafsi al aqwa soo bëggee sa bakkan bi wér del tudd yàlla borom bi nee na alladina amanu wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma innul qulub sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wax na ci alqur'an ne ci tudd yàlla ci la xel di dale ci tudd yàlla ci la nit di làqee ngëneeli àddina ak àllaaxira yi ci tudd yàlla ci la nit di amee ngërëmal yàlla allazina yazkuruna allah qiyaaman wa qu'udan wa ala junubihim ñuy tudd yàlla suñu taxawee suñu toogee suñu tëddee ndax na yëg ne tudd yàlla az zikru najaatun tudd yàlla mooy mucc zikrullah barka tudd yàlla mooy barke zikrullah hidaaya tudd yàlla mooy njub zikrullahi nicma tudd yàlla xéewal la wa naimun wa qurratu aynin wa unsun ruuhun wa saadatu nafs tudd yàlla texe la adduna ak àllaaxira tudd yàlla luy bégal xol la di dalal xel tuddu yàlla wéttaliku la foo gis kuy tudd yàlla moom du wéet tudd yàlla texe la day texel bakkan tuddu yàlla wa quwatul qalb day dëgëral xol az-zikru huwa quutul qulub tudd yàlla mooy dund xol ni doomu aadama yaramam di dundee ci lekk mu yëg ne moo ngi dund moo ngi bànneexu ci lekk gu neex gu mu tiim wala naan gu neex noonu la xolu nit di dund ci tudd yàlla da ngay dund tudd yàlla ba yëg ne sa xol baa ngi dund ba yëg ne sa xel dal na turu yàlla wi sax boo koy wax dangay ngay ci yëg cafka da ngay yëg kontaante allahu akbar da ngay yëg ne yow dëgg-dëgg yaa ngi jokkook sa borom saa yu doomu aadama bàyyee tudd yàlla na yëg ne yaramam bàmmeel la na yëg ne ràpp na na yëg ne moom dundatul ndax misaal kiy tudd yàlla ak ki tudd yàlla mi ngi mel ne kuy dund ak ku dee mbokk jullit yi tudd yàlla mooy dundal kër jullit nit bu bàyyee tudd yàlla këram na yëg ne kër gi ay armeel la nit li dundal ay mbiram li xoos xol yu wow yi ba ñu nooyaat raxasaat leen li leen di saafara bu ñu feebaree mooy tudd yàlla tabaraka wa nit soo amee benn soppe di ko tudd lu bari di ko tudd lu bari foo nekk mbooloo moo dem di ko fa wax di ko tudd mu koy dégg da lay bëgg allahu akbar waaw kon kuy tudd yàlla nag tout le temps su fekkente ne sa jabar sax foo nekk di ko tudd sa doom foo nekk di ko tudd sa président xoolal tey ñiy liggéeyal président soo leen dékkee micro rek turam la ñuy wax waa kon kii tudd yàlla tout le temps lu ngeen xalaat ci moom mbokk yi tudd yàlla bunt bu rëy la bunt boo xam ne doomu aadama bi mënul yegg ci yàlla te jaaru ci képp koo xam ne sàggane nga tudd yàlla sa buntu tëju na tudd yàlla mooy ruuxul amalu saalih jëf yu baax yi ruu gi leen di dundal mooy tudd yàlla fa ida xala al amal an zikri kaana kal jasadi allazi la ruuxa fii tudd yàlla mooy ruuxu jëf yu baax yi jëf yu baax yi bu ci tudd yàlla nekkul day nekk nit koo xamante ne yaram bu amul ruu la tudd yàlla mooy jëmbat jardin aljanna wa huwa giraasul janna wa sababu tanazzuli rahmat wa rida rabbil ardi wassama tudd yàlla ki koy def moo ngi jëmbat ci biir aljanna ci jardin ay garab tudd yàlla mooy tax yërmande wàcc ci kaw suuf tudd yàlla mooy tax nit am ngërëmal yàlla mbokk yi tudd yàlla mooy faj xol yi yaxya ibnu waaz rahimahullah nee na yow yàlla mi jéggal ñi réer ñi yow yàlla mi jéggal aji réer yi nga xam ne duñ la tudd yow yàlla mi nga xam ne yaay buuru buur yi yow yàlla bi nga xam ne adduna bi du teey lu dul ñu lay tudd maa taabati dunya illa bi zikrik wa maa taabatil axira illa bi afik adduna du mën a jag lu dul nit di tudd yàlla du mën a baax lu dul yàlla baal nit wa maa taabatil janna illa li ruyati wajihikal karim ajana du mën a neex lu dul nga jàkkaarloog yàlla di ko gis tabaraka wa taala mbokk jullit yi nanu góorgóorlu di tudd yàlla tabaraka wa taala ñu am ay askar yoo xam ne dañ koy def suba ak ngoon saa yoo jullee fajar ba pare tuddal yàlla saa yoo jullee takkusaan wala timis wala gee tuddal yàlla tabaraka wa taala dañu góorgóorlu sunu làmmiñ yi di sax ci tudd yàlla nañu yor ay waxtu yoo xamante ne yàlla la ñuy tudd dañuy wéet di ko bàkk di ko kañ ginnaaw tàkkusaan wala ginnaaw timis wala ginnaaw gee ala kulli xaal ba ngay tëdd bala ngay tëdd na nga def sa azkaarul masa yéen samay mbokk maa ngi leen di dénk ngeen di tudd yàlla lu baree bari ci façon tudd yàlla yi subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah wala laa hawla wala quwata illa billah borom bi nee na fasguru ni azgurukum tudd leen ma ma tudd leen kon kuy tudd yàlla sunu borom subhanahu wa dina la tudd fa zikrullah yuzkiruka tudd yàlla mooy tax doo fàtte borom bi tabaraka wa taala tudd yàlla mooy tax foo toll sa xel ak sa xalaat nekk ci borom bi jalla jalaaluhu wa azza kamaalu maa ngi leen di dénk borom bi tabaaraka wa taala yal na yàlla sàmm leen sàmm njaboot gi yal yàlla aar leen yal yàlla musal leen ci jàngoro ji wàcc ci àddina bi musal mbooleem jullit musal àddina bi yal nañ ko yàlla teggil di jéggalu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.